subhaanaka laa ilma lana illa maa allamtana innaka anta alalimu alxakim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi am mbégte taxaw fii ci turu jëwriñu sëriñ daam abdourahman Lo di cheikh mohamadul bachir waaye ci turu njaboot gi yépp defe naa sëriñ jili ñang tudd na ñu bari ci njaboot gi ñoo xam ne moo xam njaboot gu góor gi wala gu jigéen gi moo tax xam naa léeg-léeg di ngeen dégg ci tur yoo xam ne sax du ngeen leen miin jàppoon ne bokkuñ ci waaye sëriñ daam yàlla dafa dogal mu jaboote jigéen yoo xam ne euh, sunu borom barkeel la seen njaboot kon loolu moo tax ñooñu ngeen doon dégg ngeen doon leen dégg kon ma wax ne dañoo ñëw ci tur njaboot gi yépp di wax ci seen tur di wane sunu mbégte ci taxawaay bu am solo bii nga xam ne moom la sëriñ def muy njukkale Cheikh Abdourahman Lo bi nekkoon daarul alimul xabir ci ndigalu sëriñ Touba te doon fa taxawee alxuraan ba ñu baree bari niñ ko waxee sànq yàlla dogal ñu mokkale alxuraan ci moom euh, kon day mel ni sargal ko lu am solo la ndax mooy sargal sëriñ Touba rek bu leen fàttee ne sëriñ Touba moo waxoon ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yathbutu la bi dahabin mawrusi nee na sama ndono mooy liggéeyal alquranul karim du xaalis bu ma fi bàyyi bu ñuy donn du alal waaye képp koo xam ne rek yaa ngi ci liggéeyal alquran xamal ne yaa ngi sama ndono nga bayit boobu dafa mat am solo ñu di ko bàyyi xel ndax mooy tax kenn ku nekk soo bëggee doon doon ñi doon Serigne Touba nga xam ne joxañ baa ngoog foofu nga war a dugal sa gopp boo bëggee bokk ci ndono yi mën ngaa donn alal nag waaye nee na moom ku ku donn ci man alal donn woo ma li feeg liggéeyaloo alquranul karim lii nag jàpp naa ne ci liggéeyal alquranul karim la bokk ndax euh, waxoon nañ ko fi sànq nee nañ ku ko masaa jox kaamil mu jox la lu gën tool kon day mel ni fexe ba dundal alquran ci mbind dundal alxuraan ci mokkal ko teral ñooñ alxuraan day mel ni loolu ci liggéey boobu la bokk ndax mooy loolu mu doon def di teral ñooñ alxuraan di teral ku ko andil kaamil loolu la sëriñ alaaji sëriñ Seck jël kon loolu ci liggéeyu sëriñ Touba la bokk waxoon naa sa waxoon naa ci bi ngeen sànq bi ngeen di seetaan ni sëriñ nag bu defee loolu wax dëgg yàlla dafa wàcc rek waxoon naa ne leen maamam ci li ma sëriñ Mahamadan Seck nettali te yaakaar naa ne euh, soxna maam Anta Mbàkke dégg na ko ni ma ko déggee te bokkuñu jotaay bu ñu ni ko nettalee mooy nee na sëriñ ni daf ne ma nijaayam sëriñ Daam Abdourahman moom moom sëriñ Mor Badiane sëriñ Mor Badiane ba mu demee war a nekk sa sëñ Tayba la ko ba dem ba war a sanc ba defar di fa muy war a jëli njaboot yi dugal leen fa la jaar ci sëñ daam mu wax ko loolu ne ko damaa war a te comme maay sëñ Tayba kat damaa bëgg a dem sëñ daam digal ko mu dellu bayti toog fa te téye dong yi te yar leen ne ko damay ragal sa daara ji boo demee Tayba Tayba ab pays la mën naa am liggéey bi nga doon def dana yàqu kon nag bu sëriñ jëkkee ñëwee li mu jëkk a def mooy dundal daara jojo mooy dundal na ndigalu sëriñ Touba la ndax sëriñ sëñ daam li muy def sëriñ Touba ko digaloon kon sëriñ li muy def ci biir liggéeyu sëriñ Touba la bokk ci biir ndigalu sëriñ Touba la bokk ndax maamam taxawaay bu mel noonu la amoon kon nag yaakaar naa ne tiitam suñu mbégte dolliku na biñ nu boolee ak waa kër sëriñ moor Diop ndax day mel ni rek sëriñ Mor doom la ci sëñ Daam Abdourahmane te loolu mooy dëgg doomam la joo xam ne mat na sëkk biñ ko wanee moo tax ñu boole leen tey mën naa am am na ñum jur ci deret waaye xam ngeen ne sëriñ Tuubaa nee na woon doom ñaar la doomi deret ak doomi xaal sëriñ Mor Diop nag doomi sëriñ Daam Abdourahman la wax dëgg yàlla ku ko booleek moom ci bis bu mel nii njaboot gi yëpp dañuy màs rek mu mel ni nag li nga xam ne moo gën a am solo te gën a mat a bàyyi xel mooy li ma waxoon sànq te mooy liggéeyal alxuraan te mu mel ni jamono bi ñu toll jotaay yu mel nii tax na ñu baree bari ñi doon xaw a xeeb alxuraan ñi nga xam ne xëy na ñoom it ñi ngi doon yëngatu ci alxuraan waaye seen xol léeg euh, am ay jafe-jafe yu ci nekk ndax ni ni mu meloon tey bi ñu gisee ay boroomi alal yu génne woon ci daara ji jël seen alal def ci daara ji teral waa daara ba ñëpp gis leen loolu lu am am solo la du lu tuuti li bokk na ci li gën a dundal alxuraan bokk na ci li nga xam ne itam siggil na ñooñu alxuraan kon nag sëriñ Seck yaa ñi nga xam ne yéen bokk di def liggéey bu mel nii du def lu dul gërëm la ñaanal la te itam ni ma koy waxee rek alaaji sëriñ yëmalewu ko ci lii rek waaye nit yi daara yi du jotaay bii rek lay ñi na ci jotaay bii rek la teral waaye nit yi daara yépp lay teral di leen taxaw mboolem koo xam ne yaa ngi yëngatu ci lislaam itam mu di la jàppale ca la nga yëngutu kon loolu itam kon day mel ni rek ab goppam yemalewu ko fenn waaye mu ngi fexe ba fépp fu aw yiw nekk mu dugal fa ab goppam ndax aw yiwam bari yàlla na gën a bari yàlla na gën a yokk bokk yi xanaa rek fi ñuy daanalee te mooy wane ne mag ñu mel nii suñu leen di fàttaliku am na bind bu am solo boo xam ne bëggoon naa ñu fàttali ndax dafa am sama benn mbokku daara boo xam ne daf ma wax lu am solo daf ne ma mag ñu baax ñi ngay dégg de kenn ku ci nekk bi muy nekk ci daaraam di jàngale te loolu ñu ñun itam am nañ ci sax euh, luñ ci jot a fekkee maanaam dangay ci gis koo xam ne day xëy nekk ci daara ji soxna si nga xam ne moo war a dem ca marché ba wuti lu ñu dunde day toog di xaar di xaar ndax amuñ luñ ko jox lu mu jëndee ji lu mu lu mu lu mu lu mu jëndee ji lu waa kër gi mos mu ne waaye li ci gën a am solo mooy sëriñ daara boobu doo gis ci xar kanamam wala ci melokaanam wala ci liggéey bi muy def te mooy jàngale bi luy wane ni amul dépasse tey bokk yi loolu bind la boo xam ne lu mat a bàyyi xel la sunu mag ñu nu jàngaloon ñoom foofu la ñu nekkoon seen poste dara daawu ci nekk yaakaaruñ ko fenn nit waaye dara du soppi ci seen taxawaay lañ doon def. waaye dañ koy def ci ci anam ga gën rafete kon nag loolu bind la boo xam ne su suñuy fàttaliku mag ñu mel nii nañu xam ne sëñ Mor Diop nañu xam ne sëñ Daam Abdourahmane foofu la ñu nekkoon mooy dañuy xëy duñu am dépasse waaye dara du soppiku ci seen taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. allah jërëjëf. Euh, macha allah. anta bi ni'mati rabbika